kum bokk jur yi seetaan ak bokki taalibe yi jot nañu ndigal ak ñaan ci Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fa yàgg lool te ànd ak wér ñëw nag sëñ sëñ am di Maodo Mede xalif général ma Baye Fall yi yàlla nañ fi yàgg te ànd ak wér jaar nag ci sëñ Bassirou Mbacké moom chef de xaalis porte parole yoonu Mouride ak kan nag sëñ Abdou Rokhaya Fall moom sëñ Mor Talla Fall sëñ Abdou Rokhaya sëñ Abdou Rokhaya Fall xalifa sëñ waaye nag sëñ daam Abdourahman ak sëñ Abdou Sakor Fall ñu jëm nag te bis bi ñëpp doon nit muy cant maam Cheikh Ibrahima Fall ba le premier mai ca Sadem bu jóg kan moo koy def sëriñ Cheikh Khadim Fall mi nga xam tubaarkàlla liggéey bi da ko ànd ak ay bokkam yëpp yéen ñëpp jàmm ñëpp ñëpp yéen ko jàmmoo tax ñëpp koy fekk di ko fàttali ñëpp nag bis bi nag xam ngeen ne daan ko ci kilifteef kilifteef nag sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad sëñ Ndaam Atta moom sëñ Ibrahima Mbacke sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacke Daaru Khoudous sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou sëñ Abo Mbacke xalifa sëriñ Fallou sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Chouaïbou ak kan sëriñ Mamour Mbacke moom Cheikh Moutada waaye sëñ Modou Habib Mbacke moom sëñ Abdoulahi borom dër bi sëriñ Cheikh Abdoul Khadar xalifa sëñ Abdoul Khadar ak kan nag sëñ Moustapha Cheikh Sidi Mokhtar xalifa ci mbooleem buntu kër yi nga xam ni waa kër moom Cheikh Ibrahima Fall njabootu sëñ Modou Moussa Fall njabootu sëñ Mor Talla Fall sëñ Ablaye Fall Ndar Chérif Assane Fall sëñ Modou Mbenda Fall sëñ Aliou Fall Mbawor sëñ Saliou Fall sëñ Abdou Sakor Fall sëñ Basir Fall sëñ Mbacke Fall ak sëñ Assane Fall moom maam Saliou muy le premier mai cant maam Cheikh Ibrahima Fall kan moo koy woote nag sëriñ Cheikh Khadim Fall ci stade Demba ki koy def nag moo di sëriñ Cheikh Khadim mu sëriñ Xadim Fall mu koy defal maamam bu tedd bi di maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa ngi ciy oo comme ni mu ko doon baaxoo doon def président de la République di ci o monsieur le premier ministre di ci oo l'ensemble des membres du gouvernement di ci o comme ci Dakar lañ koy defee euh, le maire de la ville de Dakar di ci o tamit l'ensemble euh, si vous des services techniques euh, régionaux ki nga xamante ci oo tamit ki nga xam ne mooy seen jëwrin mu di le gouverneur de la région de Dakar ak l'ensemble si vous de des membres de son personnel. di wax ni sëriñ bi mi ngi woo fédération daayira yi nekk ci ndakaaru gépp ak daayira yi ngir bés bi ñuy amal muy le premier mais ci stade Demba Diop di ko defal kan maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall na ku ko wax baa nga koy liggéeyal faaw nga jàng alxuraan jàng xasida kon sëriñ bi nee na mi ngi soññewaat mbokki taalibe yi daayira yi fédération yi ñu fasool bés bi bu baax ngir njàngum alxuraan ak xasida yi ak kuréel yi rawatina kuréelu 1111 bi sëriñ bi neen mi ngi ci soññ mbokki taalibe yëpp di leen fàttaliwaat bés bi le premier mai ci stade demb Diop. jàmbaar jii toog di sëriñ Cheikh Khadim Fall. di jàmbari maam Cheikh Ibrahima Fall ju mat sëkk lan la woote mooy cant gi mu daan def fan la koy defee stade Demba Diop ren di vingt deuxième édition mu nekk le premier mai ñu fàttali mbokki taalibe yi rawatina murit ak Baye Fall yi Tidiane xaadar laayeen ñaseen ñëpp ñu ngi leen ciy woo ñu ngi ci woo daare yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal waaye Serigne Cheikh Khadim Fall nee na mu ngi ci woo la diaspora sénégalaise mi ngi tàmbalee di ci woo waa France mu ngi ci woo ñi nga xamante ni ñoo nekk ca Espagne sëriñ Cheikh Khadim Fall nee na fàttewul waa Suède mu ngi ci woo waa Italie di ci woo waa États-Unis di ci woo daayira yi nga xamante ñoo nekk ci Argentine sëriñ Cheikh Khadim Fall nee na mu ngi ci woo waa Brésil mu ngi ci woo tamit waa Allemagne. la ñoo ŋànk réew mi la ko ci président jaar ci président assemblée nationale le ministre de l'intérieur ak mboolem ñi siq liggéey bi yëpp nag waaye dafa am ay jàmbaar yoo xam ni. ba liggéey bi sàmba léegi léegi ba léegi ñoom la moom la seen seen seqa di seqa liggéey bi ku ci mel ne maître may dikka ñaa jàmbar ji seen seqa di fall yëpp xam ne ko waaye maître waaye euh, ajortu ñaañu mi ak seen i kër nga xam ne moom bis ko def bis bi ko ci ñu ngi yi fi ne te yaakaar sëriñ Cheikh Khadim Fall ñeneen bitim réew maam Cheikh tudd na leen léegi waaye xam ngeen nag programme bi bu ñu xëyee alxuraan ji nañ ko daan tam nañ ko daan tàmbalee ak sikru laaya daayira yi ñëw siyaari sëñ bi mboolem fu bàyyi faal ne ak sikkar sa bu demee nag ba ngoon xam ne daañu def ay solo yoo xam ni ay borom xam-xam ñoo koy séq ñuy waxtaanee Cheikh Ibra digganteem ak adduna waaye digganteem ak Cheikh Khadim waaye bu ñu ne bu digg nag daan def cérémonie officielle bu boo xam ni autorités yi fépp dañuy jógee ñëw sëñ bi tontu leen ñu ñaanal leen. sëñ bi ñaanal ñëpp nag. xitma bu université Cheikh Anta Diop ak daayra fu kuréelu Baye Fall nekk biir université li ko dalee IAM li se Canada ak suñu mbokk yi fu ñu nekk si biir Ndakaaru rek école de formation yi institut yi sëriñ bi mu leen di woo ci bés bi ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko jërë ngeen jëf. kuréel 1111 yi jéeg kuréelu 1111 yi jàng xasida ci dugg stade ba at mu ñu def ko yal nañ ko yàgg def ndax léegi ba rafet na lool waaye nag xam ngeen ni Cheikh Ndoye Sikkur ak mboolem ku may àndal kuy sikkar yaay fanaan ci bis ba kon ñu ngi ñu ngi koy bàyyi xel yal na ma yàlla may jégab te yóbbu nu ci ak jàmm barke Cheikh Rafal